asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañu dil si wàll rek bëgg waxtaan jëmane ko ci xew-xew yi nga xam ne moo xew ci réew mi nga xam ne bakkan yaa ngi dem deret yaa ngi tuuru xale yaa ngi jaaxle géej yaa ngi won ay nit muy jamono joo xam ne ah am naa yaakaar ne daal kullu ku dib sénégalais aw ah, tiis la ci yow ñu bëggoon a delsi ndax kat nit am na lool bu waree ci koom war naa mën xel mum xalaate seet lii lu ko waral liilu ko waral war nañ koo seet ndax mbir mi metti na mbir mi metti na te li ko gën a metti mooy cette domination satanique bii am ci réew mi une domination de la laïcité une domination maçonnique une domination satanique nga xam ne kenn xamul la fooy tàmbalee dama ne diine ji kenn xamul fooy tàmbalee kenn xamul fooy tàmbalee ñaan dëgg la te li war a waxtaan ñaan a tax ñaan yàlla moonu sàkk ñu di ko def ñaan ak julli la ñaan ak jaamu yàlla la yàlla danga koy ñaan danga koy ñaan dëkke di ko ñaan mu di la may di la may moom muy xeeb nga di ko sant muy xeeb di la dolli kon ñaan baax na lool boo ko awee ci yoonu chrétien baax na nga ko ci yéenu jullit baax na lu su war a def la loolu loola kenn wérantu ko kenn jiimu ko fee jële waaye nag dafa am lu ñu yàlla sant jëlum xel joxuñu la ca war lépp mu def ko amul génn sidit goo xam ne sama yuur gi am na ko te macaron amu ko amul men génn sidit gu ne ci sama yuur gi te nekkul ci yurug Ousmane Sonko wala yurug Macky Sall kon yàlla nañu boroom xel yi lay waxal maanaam borom moom xel lay waxal kon ubbi na bunti baraxunu ñépp te lépp nag mu teg ko wiir ko ci xam-xam dellu ne xam-xam lépp loo xam ne si tëju na xam-xam dana ko ubbi kon xam-xam c'est l'outil des solution lépp looy defar bëgg ci solution résultat xam-xam la war a àndal bu ngeen xoolee Sénégal doxewuñu xam-xam xool leen tali yi kan waxante dëgg xool leen tali yi xool leen accident yi ñoom dañoo déggoo ndax tali yu bon yi ak accident yi ñoo maase xool leen biib tali lii lu ci ay ñaan man dama lii lu ci ay ñaan man lan lu dul xale yi war a dem jàngi gëstu ji am jom futtiku liggéey teg ko ci kaw xam-xam waaye topp politiciens yi Mansour Faye mii dama ne ñii ku fi dee ñoo la rey oto tàkk bàyyi leen dogalul yàlla billaahi yàlla taadu ko oto bii tàkk giñ naa ci yàlla ne yàlla taalu ko tali bi toj fépp day sëkkus xàppatiku ŋàppatiku maasu fay mu jox ko alal li réew war ko cee def lànk téye ko séddoo ko ak i bokkam nit ñi di dee ngeen naan yàlla la ak sëriñ si naan kan tari saar nangam ak kan ñaan nangam déedéet lii togg bu ñu yàq la ñu noo togg yàq lii lii ab de ñoo togg yàkk lii ana dépense ba ana ñan ko santoon Mansour Faye mi ab sàcc la kii dañ ko war a jàpp kii du koo xam ne dafa dañ ko war a bàyyi mu circuler xool leen accident lii yoonu yàlla newu ci bakkan bu ci faatu bu ne yàlla rëyu ko dama ne dañoo bu ci faatu kii ku ci dee ku ne Mansour Faye la rey wala gouvernement bi nga xam ne joxoon nañ ko sun alal di ko taliloo ñetti voie mu defe benn voie wala ñaari voie yoo xam ne oto ci accidenté dañ dëkk Mansour Faye mii ak la famille Faye Sall ak ngi fi nekkoon dama ne ku fi dee yéen ko rey kurus dëgg la alxuraan dëgg la taal sab sondeel di ñaan loolu nga gëm yàlla mën na koo sotal alxuraan bible bi ba il ji na téere yu mel mën a indi ak ñaan ak sàkku ñaan a ca ne kon weddiwunu ñaan waaye ma jox la sama téeméer ah, ne leen ba jënd ma ak fas gu jar téeméer yow nga dem jëndal ma leneen loo xam ne jëru cinquante franc ah, dafa mel ne masalan mu jënd loolu ay comprimé yoo xam ne damay wàcce sama sukkar yow nga dem jëndal ma comprimer yu yokk sukkar bu ma dee yàlla rey ma yaa ma rey tali bii tali bii ay comprimé tali bi yéen ko fi teg nit ñi di ci dugg gis nga tali bii oto bu ci aw da ngay daanu te da dee ay ñaan yi teg leen ko ci suuf te ñaan dafa lu ko jiitoo ah. ginnaaw bëgg a gëmee ak ñaan sax danga ko war a mujjee ab jullit day jëlum xelam futti ku liggéey yàlla may ko ca ndam wala yàlla def ca lam bëgg ak nu mën a mel moññ ko sant yàlla dellu di ñaanaat nag pour yàlla defal ko leneen ak lu ëpp loolu lu ko gën ab julli day ñaanal sax moromi jullitam kurus sikrullah mën na lu ne waaye tali bii tali bi sikrullaay dara li ci mënut dama ne tali bii ñaan yi ngeen ne ab gënoon xoola dama ne bu ngeen sikkar ak wasifa ba bët set tali bi mu leen di fexe bu baax tali bi nag li koy defar non seulement njàng mi mais xale yi dem gëstu yi hydraulique xale yi dem gëstu ji cette technologie xale yi dem teglu ji les travaux pax mu rëy mii pax mu rëy mii oto bu ci ne rëy ji boo daanoo këpp dangaa toog baar saaxari xaar waaye déggoo yaa rey sa bopp yow yaa rey sa bopp te bokkaale gi nga ne moo ci réew mi nag bokkaale gi nga xam ne gëmatuñ yàlla noonu buñ jàqee rek nekkat wàcce kaamil te yàlla wàcce liwun kaamil loon de yàq rek ni ci oto liggéey liggéey bu bon lekk ko muy posen ngay cat di bëgg a dee ñu ne nañ ko wàcceel kaamil wala ndogalul yàlla ah xale yeewu leen yeewu leen na kenn ku ne dafa ne doog jël leen ndox ngeen tuur ci buntu kër yéeg kenn ku ci ne sangu juróom-ñaari yoon ak ah kenn ku ne rey aw bëy kii ne reyum xar kii ne jël bagage suul ko ci armelia kii ne yor kurusam yooyu du dara amu ci lenn ci mën a sotti yàlla dina la duma yow accident yépp yi ngeen gis yépp ak bokkaale ko indi billaahi wallaahi yàlla defuñu dara amul benn natt boo xam ne am na yàlla yóbbuñu ko amul amul alxuraan yi suñu boroom wàccee lépp a ngi ci ndax suñu boroom dafa ne bu fekkente ne mbir am na mu niroog joote wala problème ak lu mu mën a doon doone solution bi am na waaw nan bàyyi ña xam ay professionnel la nekkoon ci ñu waxtaan ñoom bu ñu solution nañ mag ñi fekke woon ñu indi taarix bi teg buñ gëstoo taarix bi teg woowaat ñi nga xam ne seenu tànk gudd na wala seen xam-xam na ñu dajalee ñu toog waxtaan bu ngeen demee ba loolu lépp daje amul leen benn solution suñu borom dellul leen ci alxuraan boo demee ci alxuraan solution baa nga fa la science est solution des xam-xam day defar nit day defaru yuur day defar àdduna xam-xam dama ne boo ko amut doo dem doo dugg àjjana ndax yàlla dafa woote ni ñëw leen ñu ne kanay ñëw mu ni yéen boroom yuur yi ñëw leen yéen boroom xel yi ñëw leen boo dofee dof kañ ngay giseeg suñu borom kañ waaye di ñaante su kurus naan sëñ bi nangam sëñ bu ne nga woo ko ñu fi jaar jàll ñoo ñu fi jaaroon jàll ci réew maa yéen a ngi torox tey bu leen di woo luñ ci man dama ñu sampoon réew mi sampoon réew nekk tey baar sàq baar sàq xool li nu bàyyee tali lu ngeen leen di woo ci tali bu xàppati ko ñu ñoom defuñu woon dara ah il faut libérer l'éducation il faut ngeen del si doon ay nit xam ne yàlla dafa mu wàcce yàlla dafa mu wàcce ñun bu ngeen yaakaaree Mansour fay mi Mansour fay mi torox ngeen kii li ak lu mën a am ak lu mën a nekk Macky Sall a tax ak Marème Faye Sall bu bokkuloo ak Marème Faye Sall ndey ak bàyyi ndey ak bàyyi ab juuti ab juuti du ko doon ci réew mi waaw ab juuti du ko doon ci réew tey bu ngeen wañ ko yaakaar ko seen tali torox ngeen dama ne yoon yii yoon yi ko ci awale sa oto boo ëpp ngaa ñaanal sax nañ la suuli ca armée armée lu xew yi parce que dafa am loo xam ne nag nit da ko war a def waaye du jóg nga ne ndogalul yàlla ak bisimilah rahmaani rahiim dema ci mu raay la sa bopp ak fóonal kaamil beeg kaamil loo ko fóon fóon te juboo te juboo nanguwoo gëstu nanguwoo jàng bu la wet ja xoola per nan la per nan lay weddal ay per yàlla ay per pendant mois yoo bëgg du tax nga tekki xool leen Sénégal rek da ngeen di xool rek jumaa yi sikkar yi dem leen ndakaaru laay laay laay kenn du nelaw kenn du nelaw te bus yaa ngi takk nit ñi amuñu liggéey xale yaa ngi daw di tasaaroo gouvernement baa ngi sàcc bu baax a baax parce que accident yi du dara lu lañ ko waroon a defere moom la politiciens yi séddoo ànd ko yenn sëriñ yi lii gàmmoo nañ ko lii màggalee nañ ko di toppe na ko ay cant dara ñaari Mali mënu fee des nii amatul lu lekk xale yi jàng ñoo ñoo Mansour Faye jël réew mi sàcc ngi naan kan wàcce kaamil ak nan jàng nanga mag déedéet bu ngeen wàcce kaamil ba sotti ba sotti kaamil bu ngeen wàcce oto këpp parce que tegu leen ko ñu du dëgg ci da ngeen ba jàq bëgg a nax yàlla. li ci li ci gën a yéeme li ci gën a yéeme kilifa yi ngeen doo ay kilifa yi diine ñoo politiciens yi ñoo ànd vuddu vuddu la ñuy def sacrifice la ñuy def. lépp loo xam ne jëm na ci suul ci armeel yeeg jël alxuraan di ko dëpp ak du për ceeka juutal di ko soppi ay xaatim kenn defu ku du sëriñ si jabar yaa ngi nii billaahi wallaahi gëmuñu xam-xam waaw naxee lañ gëm ak tuural fi ndox ak rayal xar fi ak sottil fële dugub ji indi ma tifli ci ak bandale tifli ba nëgëni ba nëgëni ci aw jiwu aw jiw ndax yéen waa Sénégal autosuffisance alimentaire am ngeen ko xërëm lii yàlla bëgg ko yonti bu bëgg ko nit ku set ak ku sell bëggut lii bëggut lii jaamu yàlla yomb na waaw jaamu yàlla lu yomb na dem leen ngeen jaamu ji yàlla te teg ko ci yoon waaye ndogalul yàlla yàllaa ko rey yàlla nangam boo jëndee am xar bu mooy wérandee ci xar mi buñ ko rendee nga sangoo deret ji lii ci réewum quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ngeen bëgg yàlla du jaxase réew mi yàlla tàmbaleegul de tàmbaleegul tàmbaleegul ci yéen de parce que am na yooyu ah boo ne doomu aadama laa waroo ko nangu waaw waaye marabu laa sëriñ laa dama sa bàyyi nangam sa maam bi muy def lii sa maam kër bi mu ne ci asamaan si nangam nangam lépp ay fen la seeni maama fi nekkoon de seeni maam a fi nekkoon tey bu fekkoon ne bàyyi leen fi liggéey bu am solo tali yu baax daañu ko bu buñ yaroon bàyyi Mansour fay mii yar bàyyam yaraale ko du doonub sàcc du doonub sàcc waaye Kossine mi ngi xaatim te xaatim ci armée yi kenn lañ koy suul ah dama ne Sénégal du ndogal de senegal ci mbugal mbugal lañu mbugal mbugal ci lañu nekk dama ne bu ngeen doon yi ndox ak euh, sarxe di toji nen di fecc di ko wër ak ah, di ubbi ay nen di naa nag yooyu yëpp ak ren di xar di tëmbal ci géej géej jëlu nag wu ñuul sànneeg euh, jëlu nag sarax ci penc meeg far gàmmu gàmmul fekk da ngay fen nag yi ngay rey lépp ay sacrifice la franc-maçon la jox xaalis nga rey téeméeri nag bakkan yooyu nga tuur xonte ko nit ñi jël seen conscience tranquille yor sa kurus war cee weer si kurullaa laana loo ciy def kurus gu mas a weer di nit pour yàq ko kurus gu rutu koo jël naan dama cay defar nit wala dama cee weer di yàlla waaw ah, dama ni seen yi bu dakku tali bënn yi tali bënn yi tali bënn yi moom la senegal di dekkee eh, yomal xiyam parce que liggéeyu leen ponkal mu toog toog muy dox ah sol bagage yoo xam ne xamuñ fu mu jëlee yére yi yor kurusam naan na sama baay ak sama maam ak ëllëg nangam ngeen yor tali bon yi tali yi yii moo leen di rey waaw te li ma ci gën a soof nag léeg-léeg kenn di jóg ne nañ nañ nañ nañ rey am xar sarax bi nañ ko def ak ku jóg na nga tibb ñaari kuddi ceeb nga saraxe kook kan jël nangam ak yépp ay ay fen la sëriñ si waxuñu dëgg bu ngeen sarax ay saako ceebit du tax ngeen di ci jàmm tant que yéen tant que laa la wax de yéen ngi bokkaale mu leen di ci jàmm da ngeen torox fi torox fële waxi yàlla laa leen di wax de sëriñ si amul ku ci mën a ñor di ba nga toog ci ab bang waxuma la ak yàlla ah ëllëg amul xoola dama ne réew mi ñu nekk bokkook ñoom buñ lekkee ñu leen ko jox dama ne buñ lekkee ñu leen ko jox kooku naan la léegi comme tawut léegi wut leen ndox ngeen sotti déedéet xam-xam lañ soxla nañ jël xale yi ñu dem jàngi dans les universités nañ jël xale yi dans les départements technologie la biologie mathématique ak physique ak chemistry moo gën yëfi dof yi xam bi yi ana koy sangoo ah yëpp dañ ko miine ah yëpp rey ne ren di xarum jàmbur tu sangoo deret ja sarxe ah, lii ah, lii xalaat dama lii dama ne Sénégal day taw ba tooy taw am ndox foo dem xéewal la ba mu des Sénégal am ndox foo dem xéewal la jën gaa ngi jën yaa ngi géej gi daa fees dell lépp doon ay xéewal te aw jën mënoo ko ci am te tubaab bi dikkee di seeni bato dem nawet bi day nawet bi ñëw ndox mi day tuur ba kër yi wala laan dama ne doo am foo jaar doo am foo jaar ndax ndox mi ak màggal wala gàmm ndox mi day tuuru taw bi oto yi duñu am fu jaar mais kër goo dugg kër goo dugg boo ñaanee potam ndox amul duñ ko am pot ndox boo naan doo ko am loolu ay nattu la ki misaal yu suñu borom teg ci noonu ñu topp marabu yi nga xam ne xamuñ fu naaw jëm ah dama ne na xale yi te réew mi ñi fi nekk ay yàqkat lañ nañ ko nangu indi xam-xam teg dëkkat université yi defaraat xale yi njàngamu ndaw mi njàngum islaam njàngum les langues nationales waaye jël soo bëy indi ko sëriñ mi ren ren xar mi sarxe ko te boo ne sëñ bi lekk xar mi booy génn mu di ko mu ci supp waaw billaahi wallaahi ak ñaan mu su fee nangu ci réew mi ak ñaan bu nangu woon bu nangu ci réew mi ñu mën a dundal suñu bopp ak ñaan bu nangu ci réew mi rek ma am ndox mu naan ak ñaan bu nangu ci nangu ci réew mi suñ doom yi du ndugg ci géej gi dee di daw réew mi sénégalais boo ne ma génn la mu ne ëcca tax yu bon yi ah, dafa kii ato dana fi jaar dama ne avion boo ko ne université nu ku bëgg yéegal bu wax fi nga jëm xale yëpp a yéeg dem ndax bëgg a génn réew mi ñii a ñaanu mag ñu baax ñi ah ñaanu mag bu baax mu fi ñaan dara amuleen lu ngeen añee tey lu ngeen ba li ngeen wax Macky Sall war ci seen kaw di ni li leen saw ñu jaamul leen yàlla ngeen lànk topp laïcité ah ay di ko fële sànni ko alxuraan bu ngeen tiitee ngeen koy wàcce ngeen naan da ngeen di jaamu yàlla ndax ngeen seen bopp de ke cim nat xola dama ci mbugal ngeen ne nekku leen ci mbugal mbugal mu tàng jër damay leen di fàttali histoire yonte yàlla lóot yonte yàlla lóot ngeen di fàttaliku ci jamonoy góor jigéen ya bi bu Sénégal gën a garaaw xam nga bu Sénégal gën a garaaw bee yonte yàlla lóot suuf si leen jaxase ak ban beeg tàkk-tàkk leeg fépp yi tàkk góor ji di tàkk di seey ba ci julli ña nekkoon di di am diini di tàkk kase bi am senegal a gën a garaaw tiim am ndox te mënoo ko jëfandikoo yor géej mu fees dee ki jën mënu mënoo caa napp am bauxite phosphate uranium am lépp tubaab bi ne ko panget yóbbu di jox ay 10 pour cent nga dëkkee xam bi ak i wayan di yëngal defe yàlla day ñëw dangeen nax seen bopp yéen seen marabu yi da ngeen nax seen bopp waaw réew mi jaar yoon te fii mu aw jëm du foofu waaw seen jabar gu rëy gi mooy li toroxal réew mi ak lépp bokkaale la moo tax réew mi quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans gaw ma ko ah gaw ma ko de cinq pour cent de musulmans sax moo am waaw ku ci ren di gàtt ah da sarxe waaw xar yëpp jeex nañ. koo si rek mi naan rayal xar mu weex xar mu jébb xar mu ndigg ak xóot di ñàkk fayda ngeen doon xar mu jigéen rayal nàngam di rey rek waaw liggéeyante ba torox ngeen def waaw waaye lii dal ci réew mi lii leen dal bu ngeen yaakaar ne ay ñaan mooy defar tali torox ngeen bu ngeen yaakaar ay ñaan ay ñaan mooy tax seen kër yi baax torox ngeen bu ngeen fi bàyyee njàng mi bàyyi fi gëm yàlla bàyyi fi yàlla def leen ak bokkaale ngi ngeen nekk ak sëriñ si di leen nax nun ñëpp nun ñëpp boo muy daañu dee nun ñëpp sax dem sawara yàlla rek njërmaan na yàlla képp nu mën a sawe waaye ñii ngeen topp baaxoon ñii ngeen topp ñoo toroxal réew mi kon may jégal bu baax te ziara di jégalu nag bu baax man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil de consciences yàlla na buur yàlla sutura indi jàmm yàlla na buur yàlla sutura indi jàmm ci réew mi Macky Sall yàlla na dem bakkandu rot France armée française yàlla te bakkandu rot institut Pasteur yàlla dañ te bakkan du rot les impérialistes yi nekk fii ci réew mi te amul njëriñ yàlla nañ dem kilifa yi diine di nax di woy seen kilifa yi diine yàlla nañ dem ba jeex tàkk te banu fi. puis soxna jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf.